besoins sont nos priorités. dal leen jàmm dara ci leen jàmm yéen mbokk internet yu MDN TV ginnaaw bu ñu nuyo leen sant leen di leen ziara li jiital ci nuyo bi ki ñu amul ku dul moom mu di Seydi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Moustapha si di si taftal moo capitaine maam Cheikh Ahmed Tidiane si Al Moustapha mbokk internet yi ñëwaat nañ ak yéen ci seen ñaareelu numéro lii di noir sur blanc envers Serigne Moustapha si tey nag ñu dikk ak yéen ci benn texte bu nga xamante ni suñu mbokk mamar Seyni Diop moko bindé kilifa gu tedd gilé sank bu tedd bilé di sayyidi al mustafa si mbok yi texte bi la nak ris na ris gu nga xamanténi kawé day itam kawé bu nga xamanteni téwlu dëgg moy tax nga man ko comprendre dañuy dem ci li nga xamanténi mom moy texte bobulé Cheikh Sidi Mohamed Al-Mustafa Si un responsable moral, un repère, un guide, une référence, Une étoile polaire pour plusieurs générations. Qu'est-ce que tu vas écrire Si aussitôt ta plume se fonde devant l'admirable sagesse, qui rayonne pour les âmes sensées, avides de savoir, de connaissances, de lumière, de vertu et de valeurs universelles. Une plume qui résiste et s'inspire du colloque international, mis en œuvre à l'ombre de sa dimension l'histoire retiendra qu'un responsable moral âgé de 35 ans avait organisé avec ses disciples au Sénégal un colloque international regroupant 23 pays. Une plume qui s'accroche et boit à la source des universités du Ramadan, qui continue d'engendrer leur impact. Une plume qui rêve d'être un jour être humain pour servir l'ombre d'un coach multidimensionnel bu ko defee mbokk internet loolu lañ leen indiloon ci première texte bi nga xamante ni day wax ci seen ñaareelu numéro bi di noir sur blanc envers Serigne Moustapha Sy ñi ci doon ànd ak Mamax Seyni Diop ginnaaw loolu nag dañuy ñëw ci directement ci suñu deuxième texte mu di texte bu nga xamante ni vraiment dafa jéggi dayoo mu di texte bu nga xamante ni eh, dafay wax jamono ji ci li nga xamante ni ci lañ toll mu di waajal li nga xamante ni mooy gàmmu Tiwaawan 2021 ca champ de course ak sang bu tedd bii di Seydi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy bu ko defee mbokk yi dina ñëw directement si suñu lu texte mu di texte bu nga xamante ni suñu mbokk Cheikh Ahmad Tijani Mbodj moom moo ko bind ci contexte bi nga xamante ni moom lañ toll ni moo ciy wax sakal gi nga xamante ni Il faut goûter digi di Serigne Mustafa si Al Maktoum sagal na mamam maamam seyd di Seydi El Hadji Malick Sy bu ko defee yi lire directement li nga ni moom texte bi. Seyid Moustapha honora encore ma Maodo. Seydi Moustapha si Al Maktoum. Vous avez encore honoré seyd al Hadji Malik. Sy. De la plus grandiose des manières. Je ne parle même pas de son taïsir, que vous avez mondialisé et de son khilas chantaient même les bébés moustachidés. Mais grâce à votre foi inébranlable, votre conviction indéboulonnable, votre détermination indomptable et votre volonté céleste insaisissable, vous avez honoré Mamadou en célébrant cette la nuit du Maulet 2020. Billahi, le prophète et les sages de Tijani étaient tous présents la nuit du Maulet.

أنت رمز الشرف الإلهي Mesdames et lii moo nekkoon li leen andilan tey ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di am kontaan sa su di leen gis ngi ni yokk ngeen ni yokk bu baax a baax fii ci chaîne bi mesdames et messieurs amis chers téléspectateurs de la MDN ñu ngi leen di jaajëfal te di leen jox di daje ci beneen numéro. fii ci MTN TV restez scotché le meilleur reste à venir